El Hadj Ahmed Aidara bismillah premier ministre ba day ah ma ne mer na lool la ko ti joyee ne kay ne Mohamed Boun Abdallah Dionne day waaw rapport bi nga xam ne Amnesty day bu Sénégal daal dina koy génnee nag ci lu jëm ci wàllu ak yelleef ak doomu aadama yi day waaw moo ko mer lool lool rawatina na ko te bi nga xam ne ña ngi fay waxtaane ñaar ñu bokk awra di sëy rawatina na kon lesbienne ya waaw premier ministre bi day nee na gis nga ñi waaw dañoo bëgg a tasum réew suñu société bi ci boppam kon lañ bëgg a tas am ne tasar te loolee duñu ko nangu comme président Macky Sall daal maanaam li mu ko xamle woon keroog bi fi Barack Obama ñëwee fii ci réew mi waaw xamal ko carrément ne ko loolee waaye duñu ko nangu laa wax waaye nag premier ministre bi nee na am na ci ay politiciens yoo xam ne day danoo nëbbatu naan yaay boo yoo société civile lañu waaw premier ministre ba ca yéen kaay ma jamal jànga yamu ca parce que Mohamed laajoon nee na président Macky Sall day waaw dama ne fii ci biir réew mi kon la ko xamle woon ne gis nga wàllum góor jigéen day waaw kenn du ko daganal te duñ ko dëggal nag fii tant que moom président Macky Sall kon mi ngi fii waaye nag ñi nga xam ne kon maanaam dañuy bind di ko ŋàññ nañu continuer di ko ŋàññ laa la wax ñun daal liggéey la ñu xam action rek premier ministre ba yamu ca dee parce que borom primature nee na ñi nga bi daal la waaw fa la doon waxee dëkk Mohamed Boun Abdallah Dionne ne gis nga man daal sama candidat bilaay moo mën gars yi moo fi ne il a le meilleur profil sur quotidien ne waaye candidat boobee di président Macky Sall waaw ma ne la gars yi day yekk nañ ko lu mel ni xamee ci week-end bi parce que Cheikh Bamba Dièye waaw nee na man day li ma gëm bëggam ko mooy dossier wu Khalifa Sall bi le li feeñ ak li làqu un dans le fond comme dans la forme ma ne adala boo xam ni kon gàcce la gàcce biir la sax ci suñu wàllum démocratie waaye itam ci moo xam ne dana ci ak ak yelleefu doomu aadama lay dox oh. te gis nga Khalifa Sall waaw man Bamba Dièye de li ma gëm mooy fanweeri fan ci weeru mars kenn du ko tëj déedéet wala buñ ko tëjee dee loolee lu garaaw a garaaw lay nekk lu garaaw a garaaw professeur Malick ne dama ne gis nga Sénégal gii waaw lii raam te ñag wala jëm te bu fa amee ka fa gaaw a génn le Sénégal est danger maître Aline Badara Cissé waaw yekk doon ba noppi nag la nit ñi war a bàyyi xel dama li xew ci élection député yi ñu génn ni la jaarul yoon man Aliou Badara Cissé maa ay carte électeurs yoo xam ni kenn tegu ko ba kenn gisu ko gouvernement bi kay waaw ma ne la ca parce que médiateur de la république nee na kenn da koo mënul nangu laa la wax inadmissible léegi nag li may sàkku ci kilifa yi nekk république bi waaw ak ministère intérieur ñu daal dina jublu kon ci wàllu woowee nee ma wàllum carte électeur yo maître Aliou Badara Cissé moom waaw dafa am fit wa ilaa daa am sañ-sañ looloo jaralaaj maître Assane Dioma Ndiaye populi ne caisse waaw xare ba dara nekk de xare ba dara combat à mort Ngom day dinay tont ñi nga ne dañ ne kon Cheikh Omar en directeur kudd day ñetti million kon la meeting eh, Ngom ne c'est pas vrai c'est faux uh-huh. Ngom ne waaw parce que nit li ndax nga organisation ba c'est archi faux du ay la ñi nga ne nañu Cheikh Omar en day ñetti million kon la def meeting man Ngom waaw dama di faral wala képp kon président de la République dama lay jàppale waaw waaw Farba Ngom ne ñii wax loolee daal yàq deru Cheikh Oumar Anne donga leen tax a campagne de dénigrement la laas Farba Ngom day waaw ma nga waxee wax jëne ca meeting bi nga ne doomu Alaaji Mansour Mbaye ne ma Cheikh Tidiane Mbaye mouvement ca dëgg-dëgg waaw moom la doon amal na ca asalem gële waaye Farba Ngom yegg lu mel ni xamee Ousmane Sonko Idrissa Seck moom Idrissa Seck moomee taala si la ci la ko tijee ne kaay nee na li ko booleeg Abdoulaye Wade day nekkul ne maa ko a lée ma ngay attaqué Idrissa Seck waaw numéro doow Idrissa Seck bi day di Déthié Fall daal dinay xam le ne tournée yi nga xam ne kon moom la Idrissa Seck nekkee ci biir réew mi du dara lu dul taataan jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund kese Idrissa Seck bu paree day yéene def nag programme ñëw Déthié Fall ne sos ak gàcce yi nga xam ne nag maanaam moom la gouvernement Macky Sall bi nekkee ci réew mi day moom la ñu bëgg a xamal sénégalais ne lu ñuy wax ni yëpp nekkul dëgg ay bàkk kese la slogan rek slogan rek Déthié Fall ne te ñun nag sénégalais yi ñu laaj yëpp waaw lan mooy PUDC lan mooy piment ñooñee xamuñu luy PUDC xamuñu luy piment laa la wax te nag réew kenn da koo mën a yor ci wàllum taf yëngal rek tatotement lambatu kese bu dee nga ne yoonu yokk te bu subaa nga ne plan Sénégal émergent lambatu rek Abdoulaye Ndoye bu réew mi ne xam nga Macky Sall mi bëgg-bëggam du dara lu dul tànnal boppam ñan la war a jàkkaarloo ci élection présidentielle ya te loolee mën ta ne tànnal boppam ay superviseur ne bëgg bokk ca élection ya parrainage na ko leer ne loolee walaay san passera ba te danañu jàkkaarloo nag ak moom libération yi ne kaay ne en ca Casamance day fukk ak juróom yi nga xam ne xel dayoon na ca ñoom bañ jàpp waaw indi nañ leen ci kasoon Ndakaaru njaay jël jóob jëlee leen ca Ziguinchor te Ziguinchor googu libération yi ne na policier bi nee ma agent Fall te mu waaja waaw ginnaaw ba ñu defee nag enquête ba ba nuppi laas en tout cas ba amoon ca asalem day neex na non meeting ba neexoon na lool ba ñuy jaawale turu Abdoulaye Wade ak turu président Macky Sall yaa jum wala maa jum maa la wax loolu de Adja Fall waykat waaw nee ñoo ngi gërëm Abdoulaye Wade bëgg a wax Macky de ne Abdoulaye Wade journal bi ne ndaw see tey ndaw si kat nee na ñu transhumant la ca Abdoulaye Wade lañ njëkk a nekk fa dem ca Khalifa léegi nag ma nga ca waa kër Macky Sall yi lée Cheikh Tidiane Mbaye laas ne Adja Fall kay waaw boo bëggee dégg dëgg Abdoulaye da nekk ca xol booba léegi ni la de <laughs> alaaji Olof Ndiaye nee na lu njëkk ca xol des tax te kenn du bëgg di bañ loo sori sori yaa nekk fii ci xol bi lu des yeux près du cœur ma de boo pare ma ne la alaaji tëjal